ko defee nag mu ñëw ci anami final yi kon nga def nag faslu aw juhil afxaali lii mooy dogub anami final yi moo gën nga ne baabu aw juhil afxaali ndax nam defe woon tarjama ji ci njëlbeenu bunt bi wa aw juhul afxaali anami final yi sabaxatun juróom-ñaar lañ kama jamaaha naka mu leen boole fil bayit ci wenn bayit man koo xam ne taqaddama jiitu woon na anami final yi nee na juróom-ñaar la am na kenn ko boole woon ci wenn bayit kooku mu da ko waxe woon daaj bi mu wax tawil dafa waxan ne saxiixun wa mahmuuzun mitaalun wa ajwafu lafiifun wa manquusul binaa wal mudaaxafu moom mi nag moom day way rajas mu jël na way woow rek soppar ci ko dagg yenn araf yi ak yooyu rek ba dugal ko ci biir daal ne saxiixu saxiix mahmuusun ak mahmuus misaalun ak misaal ajwaf ak ajwaf lafiif ak lafiif man xoosul binaa ak lu ñu wàññi ak tëgg al mudaaf ak mudaaf nee na juróom-ñaari anam yi fi xaal yi mooy yi mu wàññi ci way wi boo ko wàññee juróom-ñaar la saxiix mahmuus misaal ajwaf ñeent la lafiif man xoos mudaaf bu juróom-ñaar ku wax ko nag benn benn danaa ajo woon nag nga ràññeetlu leen ndax bu ñu demee bay joxe atte yi dañuy jékki-jékki rek ne bu doonee saxiix nangam ay atteem bu doonee mahmuus nangam wala bu doonee ajwaf nangam wala bu doonee mudaaf nangam fekk na nga takkoon lañ jubli ci baat yooyu nag waaw loolu da ciy baax ndax am xam ko sax xàmmee leen jëfewut xanaa takk bi bu dee am mooy jëfe waaye ñun jëfewuñu moo nekk nii wamaa loo xam ne yu daa def na ko gis xalaa muy wéet min xarfi ay lettin ci arafu ràgg xawa moom as saxiixu moo di saxiix ndaxum fa ñoom ka àddala ni ki àddala maandu na waaw nee na bu fekkee ne gis nga yetti araf ya ndax yi mu la wax ni yëpp bu xasee yëpp yetti araf lii du ci am solo waaye bu doon yetti araf moom lay lay aajowoo nga xam ci anam yi kon boo gisee yetti araf ya mu doon yetti araf yoo xam ne wenn reggu ca maanaam kenn nekku ci alif kenn nekku ci waaw kenn nekku ci yaa waaye soo ba boole waale ji di sàddawuñ ca wenn ndax buñ ko sàddaa itam day am beneen tur te nga boole ci kenn nekku ci am sa boole ci ndax bu ci kenn doonee am sa itam mu amaat beneen tur kon jàppal ne loo xam ne yetti araf ya amu ci wenn arafu ràgg te amu ci wenn wuy am sa amu ci wenn wuñ sàdd itam waaw loolu mooy saxi ka àddala ni ki àddala maandu na àddala maandu na yetti araf la yoo xam ne gisoo ci wenn arafu ràgg fii nag moom ràgg fii bokkut ak ràgg ci naxu ràgg ci naxu mujj rek nga daan xool fii nag moom lépp ci la yetti araf yëpp wa ci njëkk wa ci digg ba wa ci mujj yëpp ci yam wenn wañ caan arafu ràgg rek la ñuy sart mu ne xaddala wala jalasa wala xatala wala daraba yu bari lañ wamaa loo xam ne yekkoon dana nekk ahadul usuli kenn ci cosaan ya xamsan di xamsa fa mahmuusum kon mooy mahmuus des na ko def xalal maqooli ca la ñu wax kii dafa def xalal manqooli ca la ñu toxal nee na bu fekkee ne kenn ci yetti arafi cosaan yi am na ci bu nekk am sa loolu mooy mahmuus lu ñu am saal taxaw li ko nit sax na ne sa ala laaj na aljaahilu ajréer ja ahla dikri ñu xam-xam wa qaraata jàng al ummi yi ko jum ndey ka xindal muqri fa aji jàng la ja xam nga saala lu ci digg bi moo nekk am sax xaraa wa ci mujj moo nekk am sax boo ne woon akala nag lu ci njëlbeen gi moo nekk am sax kon lu ci nekk mën naa mën naa am sax yu ci njëkk yu ci digg wa ci mujj su boobaa mahmuus nga koy tudde wamaa loo xam ne yu daa def na gis bi faa ihi ca faam nga i'tilaalun ak ràgg ka wasala ni ki wasala jokk na arrahima bokk ga fal mitaalu kon loolu mooy mitaal nee na boo xoolee yetti araf ya bu nga njëkk a jot dong moo ci ràgg waaye yaari ca des moom wenn ràggu ca mu ne wasala jokk na arrahimu bokk ga wasala waaw gi rek moo ci araf ràgg lu waqa ba tàbbi na nit itaa waqa ba waqa ba jooju mooy itam li nga jëkk jot rek moo ràgg waqa ba tëb na it noonu waxee na doye dana noonu yu mel noonu loolu mooy misaal wa in yëkkun ndem dana nekk va gi léegi ràgg dil xay ni di ñeel xayin nga fal ajwafu kon moo di ajwaf taxaw li ko ñu sax nga ne xaafa ragal na al axwafu ka gën ragal yàlla rabbahu boroomam wasaama te mu woor man daa wax ne bu fekkee xëyin nga muy arafa ci digg ba moom dong ràgg kon loolu moo tudd ajwaf mu ne xaafa ragal na xa wi fa la doonoon mu saa yoo gisee alif rek moom moo xam ci digg bi la moo xam ci mujj la xamal ne cosaanu wu fa benn mu nga bàyyi ko ci waaw bàyyi ci yaare waaye mu cosaanu wu fa mu ne xaafa ragal na xaa wi fa ci la bàyyi ko su andee mastar ma xaw fan ak ragal waaw nga dee gisee ba mu ne xaa wi fa dañuy wax araf rag yi maas yi wi fataa jiitu ko muy xaa war naa soppi ko alif mu daal doon alif muy xaafa ragal na saam war na itam sa wa ma ci la bàyyi ko boo nee saw man koor rek waaw nga dellu si moom dañ ne sa wa ma muy faxala ñu alfa gi maas te muy wa googu fata jiitu ko muy saa gi war naa sopp ko lif ñu def ko lif mu daal doon saama lu mel noonu nag mooy aji wof nga xam ne ci digg bi rek moo ràgg wamaa loo xam ne xadaa xëy na ak taw si fu melal ga bi xarfi xillatin ci araf ràgg li asleyhi di ñeel yaari cosaanam xëwa moom al lafiif mooy lafiif nee na nag koo xam ne moom yetti araf yi boo ko dee xool yaar yëpp daa ràgg nee na bu fekkee ne yetti araf yi boo ko dee xool yaar yëpp daa ràgg wenn rek moo ci wër ne loolu moo tudd lafiif kooku nag ñaar la ndax araf yi ràgg te muy yaar mën nañoo sësaloo mën nañoo bañ a sësaloo moo tax mu naa waxoo moom ala darbay ni nekk na ci yaari xeet fil matrooki ci la ñu bind daahu wooye nañu ko bil maqrooni ci lu ñu lëkkale wal mafroq ak lu ñu teqale am na lafiif bu ñu wooye maqroon am na bu ñu wooye mafroq ci kaw rek ne yaari araf yi sësaloo baa ñu ñàkk sësaloo mu la bëgg a wax maqroonu hoo lu ñu lëkkalee maa mooy la nga xam ne alxaynu xayn nga turaa def na ko gis bil ictilaali ci ràgg wal laamu ak laam nga xëyin nga ak laam nga mooy arafu ñaar la aw ñetteel wa fekk yooyu ñoo ràgg ci ci njëkk rek moom moo ràggut waaye wañu ñaar yooyu nuyoo ci digg ba ak wa ca mujj yëpp dañoo ràgg loolu moo tudd allafiiful maqroon nga xaw li ko ni soxla ja nga ne chewa wàjj na allah ma yàpp wa xiran ngir berndeel wàjj na yàpp wa ngir ganalee ko chewa boobu chawa ya la doonoon cha wa ya alif moom boo ko fekk rek cosaanowul ci baat mu ci digg mu ci mujj gi chawa nag ya aboon araf ràgg la bu maas fata jiitu ko ci wa gi ñu topp ko lif moo ko def chawa xam nga ne lay kon boo nee chawa ya yu nga jëkk jot bi si soos rek moo ràggut ay yaari ci yëpp mu xëy nag laam dañoo ràgg loolu ngay wooyee allafiiful maqroon wamaa loo xam ne intilaaluhu ràggam nga bi faa yi nekk na ci faaxam nga walaam yi akuk laam mafruquhu mooy lu ñu teqale lafiif maanaam bu fekkee nag boo nga jëkk jot muy faaga ak wecca mujj muy laam nga muy laam kon xam nga yaari ràgg sësalowuñ loolu la ñuy wooye allafiiful mafruq lafiif bu ñu teqale li mu xaw li ko mooy soox ja nga ne wafaytu matale naa bi dinaa mi ci wàllu réer xam nga wafaytu wa fa ya la doon boo ko xool ci digg bi muy faag rek araf ci digg bi rek moo ràggut waaye njëlbéen daa ràgg ya googu itam dafa ràgg waaw li mel noonu nag moom la ñuy wooye àlla suuf mafroq mu ne waxaa wattu na moom la waqaa fegal na moom la waxaa waxaya waqaa waqaya yi mel noonu ñooy lafiif mafroq sowaa nag moom jee mooy lu mel ni ba tey tawaa taxañ na bu mel ne nawaay yéene na yi mel noonu ba tey lafiif maqroon lañ yomb nañoo xam ne wamaa loo xam ne wakkoonu dana nekk allaamu laam nga daa yi lettin di boroomuk ràgg bil xusoo si ci jagoo daaw wooye nañu ko bil mën xoos si ci mën xoos na ko nag bu fekkee yetti araf ya wa ci mujj rek te mooy laamu baat ba moom dong moo ci ràgg ci des yëpp benn ràggu ci namu xaw li ko moo sox ja nga ne daxaa ñaan na allah yàlla waqad radu tambur moom gërëm na an xawalis ko xam nga daxaa ñaan na ndax bàyyi ko ci daxawa te boo nee daxawatan rek waaw nga dellu si xam ne alif googu moom ci waaw la bàyyi ko bu dee alif bu bàyyi ko ci waaw soo ko dee bind du war yanara ko bind rek noonu tam bañ a war yanara mu ne naxaa jublu ne yan xoo dana jublu wala sama yëkkati ko ne yes moo alif mel noonu wartu war yanara wartu am yanara kooku kon man xoos la ndax daxawa mujj rek ràgg ba tey rab yi gërëm na daa bàyyi ko ci rab wa rab wa ci la bàyyi ko te boo nee ridwaan ngërëm gis na waaw bu daal dellu si waaye bu doonee rab wa dañu wax ni waaw bu nekkee ci mujjug baat te kasara jiitu ko dañ koy soppi yaar moo tax ñu def ko rab yi gërëm na waaye rab wa la doonoon ba tey moom itam man xoos la wa naxoo ak naxoo bi firi xelwu na arrajulu waaja fil xawli ci wax ja arrajulu jëriñ gërëm naxu xelu na moom itam man xoos la moom nag daa bàyyi daa daa safaanoog radiya moom daa bàyyi ko ci naxu ya gis nga boo nee naxu ya tun am xel mu daal yàgg daal dellu si moom naxu ya ci la bàyyi ko moom itam ñu ne yaa bu nekkee ci mujj baat te dàmm jiitu ko dañ ko soppi mi waaw wala moo tax naxu ya ñu soppi ko naxu wa kon loolu mooy man xoos maa loo xam ne ay naxoo xaynam nga wala muxoo ak laamam nga min jël sin tukkee ni ci wenn xeet xoo moom al mudaaf mooy mudaaf bi doon lépp ci ci loolu lant ma baax moom rek moo ci des juróom-ñaari moom nee na mooy loo xam ne xëy nga ak laam nga mooy arafu ñaar la woo ñetteel wa ñoo bokk wenn xeet man ñoo bokk ñaari daal ñu ki boo ne mat da tàllal na bàyyi ko woon ci ma da da wala radda delloo na mu bàyyi ko woon ci ra da da man ñu bokk di yaari ra niki farra daw na wala marra romb na daa bàyyi ko ci fa ra ra ak ma ra ra nga xam ne kon moom saa yoo gisee arafu ñaareel aw ñetteeloo ñu bokk wenn xeet rek loolu mooy mudaaf yokkul dana nekk mudd xamante lu ñu lid xaam atte mooy ñu lid xaam ko lid xaam mooy da nga jël arafu njëkk wi sàdd ko ci wu ñaareeloo xaw jëkk ni soxja nga ne madd tëbb na albaxaru géej ga ab xoruhoo duusam ya xam nga madd daa bàyyi ko ci ma da da muy faala nga jël daal gu njëkk gi sàdd ko ci bu ñaaral gi ko defee mu sotti commencé ak nekk mu daal doon madda mooy sàdd boobu ngay seen bu dee radda da nga ne radda delloo na bu dee marara nga ne marra romb na yëpp loolu la ñu def mu daaf wa istaqra def na ko jàng nag muzharan mbir mu lu ñu feeñal daañu ko jàng itam bañ ko liti xaam waaye nag jàng ko bañ ko liti xaam bëriwut mooy yem li bëgg a wax rek waltu si ma warloof na al idi xaamu liti xaam nga fii xëyri faañ la ci kurul faañ la nee na bu fekkee tëggowul faañ la niki radd bi nga wax léegi faxala la daa bàyyi ko ci radada wala madda bi nga wax moom it daa bàyyi ko ci faxala madada ndegam du faxila rek moom des ko liti xaam day war nga liti xaam ko wal fakku xob bi nga nag fii faxila ci faxila nuqi la toxaleef na ko naa bu doon mbir muy aji neew dina bu dee faxila nag moom lu ci ëpp moom itam mooy liti xaam gi niki val la yendu na boobu ngay gis tàggaroo vali la ci la bàyyi ko muy faxila mal la woqat na it noonu faxila la mali la waaye yëpp da nga koy nit xam ne mal la waqat na bal la yendu na waaye am na nag ay benn benn ci faxil yoo xam ne da nga ciy bañ a juum moom la ñu bëgg a indi kenn ku nit xam da nga koy bàyyi noonu rek juróom benn lañ ka ali la mel ni ali la kuujuj na asiqaaw mbuus na mbuus na kuujuj na maanaam xet ga soppiku na ali la boobu kenn du ko def allah soo gisee allah xëy na muy firi melxati na mbaa xaaju na waaye bu dee ali la bi firi kuujuj na dellu ca mbuus na ngay bàyyi yaari laam yi ñu mel boo jël laam bu njëkk ki sàdd ci ko ñaareel gi nga koy bàyyi noonu rek ak wat insaan nit ka nit ka dab ba yiif na yiif na mooy kawar gi dafa sëq jëm si ci jëri kooku mooy itam deesu ko def dab ba ngay bàyyi rek da bi ba bañ a sàdd baabee ci bële teqale ko noonu boo gisee dab ba kon xëy na muy firi jukkat na mbaa leneen waaye bu dee firi yiif na moom ñu lay mel kenn bañ koo li taxaam su ma dabi ba topp dabi ba bii firi bari na ay mbët almakaanu béréb ba dab ba jooju noonu ñu koy bàyyi bu fekkee gis nga dab ba rek moom noonu maanaam mu firi nànk na mel ni nànk ab ab këlloo la yooyu waaye bu dee firi béréb bu bari ni mbëtt moom dañuy taqale noonu yaari bàyyi wa sakika ak sakika bu firi rénk na alfaras fas wa rénk dox yu ñaaw la ci fas sikkile taamuñ ko ci waaye yaay kaafir dañ koy bàyyi mu teqale ko mi sakika bu ko def sakka boo ko defee sakk fa aw kon sakk fëgg na buntu wala yooyu moom des na ko li taxaw waaye bu dee bii moom yu dee mel ak wa shahru kawar ga xatita rankaloona xatita boobu noonu lañ koy bàyyi dañ ko dañ ko li taxaw kenn ko def xatta boo ko defee xatta mën naa muy firi xaram na xamul na ba mbaa yooyu waaye bu dee bii moom ñu lañ koy def ak waxaay nu ko bëtam ba xadd laxixat ketambe na mën maa ci la nga xam ne boobu ta takkeef na ko laxixa boobu kenn ko def laxat di ko sàdd ngay bàyyi noonu rek muy laxixat danga ma ngay dellu ci bët ba di firi ketambe juróom benn yooyu moom la taalifkat boobu takk ni moom te itam siiw na ci téere yi danga koy bàyyi noonu rek wa jaa dikk na naxu xayya lu mel ne xayya wa xayya ak xayya bu loo xew ni ci yaari anam ya maanaam su fekkee fiirul maadil ma dafa am yaari yaa maanaam mu daaf ma dafa ñëw ci fiirul maadin te doon yaari yaa mel ne xayya bi firi dund na ak xayya bi firi lott na lott ci wax ñooyemoo pour kenn ku ci nekk ñooyemoo su ma ko waxee mooy kenn ku ci nekk yaari yaa moo nekk yow kon takk takk mooy su doonee fiirul maadin ma ba noppi itam yaari tam yaari araf yi fa nekk tam roo doon yaari yaa kon bu la neexee tàggale leen bu la neexee taqale leen maanaam xayya bi nga njëkk ba bu la neexee ne xayya teqale ko noonu bu la neexee ne xayya xayya mooy teqale gi xayya mooy nga taqale ko mooy li tax nga li taxam ko léegi dafa baax na xayya xayya bee nga xam ne ko li taxam itam bu la neexee teqale ko ne xayya xayya kon takk takk bi rek mooy loolu fii su naaj ma daal moom bu dee yaari yaa mën ngaa ko li taxam mën ngaa bàyyi laaka muhiyan waxuma lu mel ne muhiyan lan yuhiya ak lan yuhiya booy takk nga wax ne bu dee ismu faayil ma nga xam ne dafa toll ci barabu nasab wala muy fiilu mudaari mu toll ci barabu nasab su boobaa yaari yaa gën a batase yaar yëpp maas waaye su boobaa bul ko li xam bàyyi ko rek noona mel ne muhiyan boo ne raaytu gis naa muhiyan aji dundal kon muhiyan nekk bi mu nekk barabu nasab di mafoolum bii mooy tax yaaw ñaaral gi maas waaye boo ne woon xuwa moom al muhiyi yaaw njëkk dong mooy maas boo ko taaruutul sax ni xuwa muhiyin kon yaaw ñaar gi dafa dagg sax benn yoon dem ku mel ne kooku nag bu ko jéem a li di xaam deqale ko rek noonu bàyyi yaari yaay jàng ko noonu bu dee mu daay xam itam lan ñu xiyee barabu nasab ba dong tax yaaw ñaaral gi maas bu fekkoon barabu rafaa la yii rek lay doon bu doon barabu jësam yaaw ñaar ga day far dagg sax benn yoon lam yuux yi ngay wax li mel noonu nag ba tey bul ko jéem li di xam bàyyi ko rek noonu kon takk takk li mooy ismu faaxil ma ci bérébu nasab ba ak fiilu mudaarif ma ci bérébu nasab ba yaaw ñaar ga dana maas waaye lu gaar dong la ndax bérébu nasab ba waaye bu dee boo weesoo béréb booba yaaw ñaareel ga benn bu maas mbaa du fa fal nekkat sax su boobaa na ko ñoom bu leen di xam bàyyi leen noonu rek baabam li ab bunt la fii bayaani tasrifi tulaasi yi ci leeral soppi tulaasi yi